yee bëgg naa leen yéen ñëpp te ginnaaw ma sant yàlla te di julli si Yeesu Kirista te di waa di bëgg àdduna te di bëgg boo ma war a bëral ma Kunta Siise te di ko bëgg bu baax a baax yee noonu la demee ko sama tur dëgg ndax dama kaa xam man yee noonu la demee di bëgg àdduna ay ka jox ko mu këllam waaw fay naa la Fatma Dia ginnaaw bi ñu sant yàlla julli si yoon bi di sant sama ñaari waajur di sant presse bi fi ñëw ñëpp xam nga di nuyu paa yi fi nekk su ni Zal Oni su ma lépp di sant tamit Boussa Ketchup maanaam tey lii bu amee sax si loxoy Boussa la. xam nga di bëggee gaa yëpp di bëggee sama waa waa Seras mafia bi xam nga di bëggee nante yëpp waaw di bëggee tamit Fallou Ndiaye promoteur numéro un. waaw parce que promoteur yi bëri doon nañ ma woo mais xam naa ne mooy loolu man xam naa ne combat bi yenn promoteur mënuñu ko tëgg ku dul faalu Ndiaye. kon Fallou Ndiaye bu tëggee lu mel nii maanaam du nekkul palmarès waaw coow la rek. Mm, waaw coow la rek moo loolu. ba pare teg si ban pël dafa am fu ma waaw man maanaam dama war a fayeeku si làmb te parce que dama yàgg si làmb waaw dama bëgg a sama yaay jàppale sama papa. waaw ta parce que ñaan naa yàlla tey jii combat bi ma am si terrain Laurent am si terrain ñu dugal fa sunu yaay waaw te gëm naa ne gars yi si jàpp. Mm. waaw di nuyu tamit Pape Diouf bu baax. waaw li Fallou Ndiaye wax nii léegi ba mu ba mu woo man moom Fallou Ndiaye poussé ñoo taxawoon. Pape Diouf wax loolu ne maa maa moom dinañu jëndal ku nekk trois bloc kon loolu noonu bëgg loolu rek dafa neex xam nga kon man damay sant gars fi ñëw ñëpp waa kii nag man aw ma lu may wax ci moom. turam dëgg-dëgg nu mu tudd. waaw Roland Gomes la tudd. Roland Gomes la tudd. man ki dama kaa xam. Ah. xam nga mooy loolu deful dara ci lam benn combat la bëre footballeur la daan. waaw Plateau footballeur la tam man Bou Siteu man bii mooy sama dixième combat. kii ku mu daan kii ñu mu daan jadi jadi da ka kaa gis si làmb. Malick Ndiaye 37 fu yaxu daaw la comme moom kii lënd la daa yàgg. yee kii billaay wallaay bëri na yéen ñii diñ vidéo moom moo leen mag. yee comme kii ni maanaam man damaa ñaax fayda sax kii maa ko mën fuuf. billaay wallaay taalaay sama ménagère a ngi ménagère am a ngi. yee naaj nañ teg si ñu mooni. sama avant sax laa la wax bëgguma ko ye maa moom wéeru ma ko si gàllaaj ye làmb doole la ak sañ-sañ ak man-man bu dëggu ye billaay walaay maa kii du dossier ye kii motul mbamb sax ye day daw peloton motul mbamb ye noonu la demee nag lamb gi ku jëf rek da ngay jël ye mais Farma di wax ne maanaam comme ça ñit ñi wër la nii wala nga toog sa koñ nante yi wër la nii ngay def émission di mbaraju di wax loolu neex dafa neex mais ay buñ tëjee barrières yi ma loolu laay laaj waa Sénégal ay buñ tëjee barrières yi arène nationale nii booy Malick Ndiaye moo la gën a wax téeméeri junni duñ dem duñ dem fenn fii la ñuy taxaw ñu wax li ñuy wax billaay wallaay mun naa ñëw de jàpp ko daan de du ma ko def ma koy dóor ba mu nekk nit daan ko yee noonu la demee nag yee lu ko dëbb moo ko mokkal kii dafa neex kii bu waxee loolu xam nga ne day reetaan loo ñun ñi rek ay ku bugul sa papa luy loolu ay ku bugul sa papa. ab buku papa. waaye dul laa la wax. ab buku papa la wax. naan la wan keeso meeso reeso tàngal mante fereeso. man damaa nekk ci yoon man du booy ndaw yi ñoo may téye déggul ma la kii maa moom du ay palmarees coow la rek. man coow moo tax ma jël ko ma ñu fay ma si loo xam te dama koy dégg rek. musuma ko fayoo te dama pare pour jàppale sama yaay ak sama papa loolu tax ma jël combat bi mm-hmm. waaw combat bi nag ñu bëri sama mag góoraa sax bëgg ko mm-hmm. mu ngi ba Espagne di ko nuyu di nuyu jabaram mm-hmm. combat bi maanaam amul kenn ku ko bëgg mais damay dama bëgg gars ñu xam ne combat bi dama bëgg a teral sama yaay teral sama papa bëgg leen a am fu ma leen dugal moo tax ma jël combat bi mais kii du ma moroomam jël combat bi kenn bëgg ko combat bi coow la Zal Oni chaque jour mu wax ci combat bi bëggul woon sax combat bi ñu daje barki leeru alxuraan ak combat bi ñuy bëre nii mu ne ñu lu ma leen def si àdduna yëpp maa ngi jéggalu ku dee ak sa bàmmeel kii. billaay wallaay xamul woon ni da ngeen di bëri bii mooy troisième fois mu wax ko si sorti mais man loolu dawul sama xam nga la moo daw sama yaram. yaa ko wax yaa ko wax. lan laay fan laay waxee waaye déggu ma la kii maanaam day comédie rek. man nante yi xam nañ ma bu baax. daa daa am lu muy incarné. yee man loolu daw ma man nante ñoo may bëggee. yee làmb ji làmb nante la dama gis moom Malick Ndiaye 37 fu mu woote carte. te mbéykat yi dañuy carte kii tapet la xam nga yàqu daalo déggoon ngeen lu mu fi wax yëpp ma ñëw stade bi indi 300000 sa kanam xam nga yaa dégg kii sekkuma moom ay carte bi parce que du ma moromam kii xam nga la may wax ji bisu combat bi dama kaa jëfee maa booy lu leer xam nga lu ma la wax ñëw jël ko moo loolu noonu jàpp sànni fële. boo bi du dossier kii loxoy dëgëru su dóoree dóor ah? dëgër day damb. dégg ma la wax man waa géej waaye nan tey sax xam lañ ma wax kii bul nekk fii sax di teesanteeg moom di waxanteeg moom te parce que doo moromam. bii mooy sama dixième combat moom bii mooy deuxième combat am. benn komba laa bëre. yee daa doo tëkku lis ma ne ko balaa ngaa bërëg lis foog nga ah, lëmbal wax nga ma ko maa ko balaa moo bërëg lis foog mu lëmbal waaw kii te balaa moo bërëg man daa lëmbal moo tax mu dem jëlee ak kii ne dafa mbër waaw tey jii nii xoolal lis maa ko ëpp ay ndam sept victoire la am am ñaari défaite léegi moom it tapet la moo mu jël ma waaw su ma tapetoon du la jël géewul ma la man coow moo ñu ba pare ñu fay ma si combat bi loo xamante ne nii lañ ma fay ah, lañ pour lan daaw njaago ngay rab sama loolu yëpp dawal sama kii nag xam ne bokk ma ko golo bàcc ma ko ak jëfinu malam kii dafa mën a mbarajo rek kii du ma moromam kii bu ma ko jàppee moo xam ne kii bu ma ko jàppee moo xam ne émission yi muy def nante yëpp taxaw maa ngi moom rek ñu tëj damay yàqamte maanaam Fallou Ndiaye bëgguma sax combat mu koy léegi léegi mu da ngay déglu ma wax Fallou Ndiaye déglu ma la nga Fallou Ndiaye bëgguma sax muy Fallou Ndiaye bëgguma sax muy yóbbu combat bi ci foo xamante ne ni muy sore ay dadu sore na eh, jàpp date bu gaaw man man defaral ma ko mais du ma ko met kii du ma moroom. bilaay walaay taalaay ah. kii du dossier. Eh, kii lekkaluwul. Ah. bilaay walaay taalaay. ku ne jaar na fi bandi moo koy gis nga ku ne jaar ay Malick Ndiaye kii Malick Ndiaye moo ko dafa wax fuuf. di wuyoo milieu. di daw. yee naas te ñun dañoo dem ba teeral. yee daa am loo xamante ni da koy dugal si inspiré ba rëy kii du bandi bandem xaayul mais Fatma Dia nga bu mu dox xoolal si naan yow micro bi kii rek nga koy tiimale dama bëgg nga may tiimale micro bi kii du bandi kii tapper la te dinaa ko teg lu métti yee kii du ñeme ma Fatma Dia fii laa ko def barki Serigne Touba kii man ak moom rek ñu jàkkaaroo albine bib barki alxuraanu karim dama koy duma duma yi métti daan ko Ronald dama lay duma duma yi métti daan la ah, ah, man du ma sa morom man li may wax dara wax ji bëriwul kii li ma koy wax naa ko. li may wax waa Géejawaay muy maanaam. combat bi xam naa ne am na ñu bëri ñoo xam ne neexu leen mais maanaam ci coow moo ñu boole du palmarès ku am sept victoire ak ku am benn victoire du benn xam nga du bëggee Zal Oni bu baax du bëggee waa Géejawaay di wax ne gars waaw maanaam nañu waaj rek kii coow moo ñu boole. demee di bëggee ah, man it àdduna yee man géej waay fa laa sama gaale bu mag mooy foofu noonu. yee falaa judoo falaa fa laa defee la maax saaka jor ñoo bokkoon secteur. yee mais samay lépp a ngi jàmm gën suñ kër gu mag a nekk géej waay fa. yee mais man àdduna may bége du jàmm gën kese bégewu ma. yee man àdduna laay bëgg ba fu mu dëkk kii gàllem sax dañ. may supporté di ñaanal Siteu yàlla may ko ndam ci la indi woon de yow loo indi. lis yaa waaw indi rocci sa pour rocci sa pour yow loo dañoo soxor dañuy rocci ba. da kii ñeme naa taxaw man di wax rocci puuj. na pire kii su lekk nit daganoon yaram bi laay dagg teg ci biir yaa di yëy. kii amul fitu sax man la sama arbi na pire mu taxaw dëggal boppam kii tollul ni nit ñi. kii arbitre ñemewul na pip ma jublu si moom m taxaw. arbitre sifflé nii